bile li yàlla xam doy na ma gëlëmal ci mbëggeel tuuti des mu rey ma xale bile moom dafa ne daf ma looba lépp lépp sa wax fen la xale bile ok mooma def ma mel ba noppi ne fees ma ma yewu gën a sadik góor a gën soo xor léegi ka jëm ku sama digg xol bàyyi faragat boo xam ne du dañ nelawal ma ma yeewu gën a sadik góor a tax jigéen soxor léegi bile moom li yàlla xam doy na daf ma gëlëmal ci mbëggeel tuuti des mu rëy ma xale bile moom dafa ne daf ma looba lépp lépp sa wax fen la xale bile ok mooma def ni ma mel ba ne fees nelawal ma ma yeewu gën a sadik góor a tax jigéen soo xor léegi jël paaka jëm ko sama digg xol bàyyi falagat bu xam du deñ nelawal ma ma yeewu gën a sadik góor a tax jigéen soo xor léegi li yàlla xam doy na daf ma gëlëmal ci mbëggeel tuuti des mu rëy ma xale bile moom dafa ne daf ma looba lépp lépp sa wax fen la xale bile ok mooma def ma mel ba noppi ne fees ne la ma ma yewu gën a sadik góor a tax jigéen soo xor léegi jël jam ko sama digg xol boo xam ne du deñ nelawal ma ma yeewu gën a sadik góor a tax jigéen soxor léegi bile moom yàlla xam doy daf ma gëlëmal ci mbëggeel des mu rëy ma xale bile moom dafa ne daf ma looba lépp lépp sa wax fen la xale bile